site internet étoile tv sénégal nuyu leen jaajëfal leen bu baax a baax ñëwaat ak yéen ci ak tiis ci ak naqar di génn àdduna artiste comédien bile nga xamante ne moom moo lan woyo turu Bass Jaxate ñu rek fan yu néew tàggee woon nañ ko fi ba mu demoon ab sorti di xam le ni mu ngi si jàmm bu baax a baax alors tey nag li nga xamante ni mooy démb euh, ci guddi à partir de quatre heures du matin wala sax tey ci fajar lañ ñu tàggee nga xamante ne mooy euh, Bass Diakhaté te am nañ ci tamit ay confirmation yu leer nañ parce que ay famille euh, génn nañu confirmer li nga xamante ni mooy euh, génnub àdduna euh, ba caxate comme niñ koy waxee rek kuf na siñ zaye xatil mawtu bakkan bu ñam dund rek di nga ñam dee di ko jaale ay mbokkam di ko jaale ñëpp ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci wàllum culture waaye tamit di ko jaale Sénégal yëpp ndax Sénégal ñëpp ñoo ñàkk Bass Jaxate mi nga xamante ne moo nekkoon fii ci réew mi daan bégal nit ñi daan retaanloo nit ni yàlla jël na ko di ko ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jugee